Bienvenue sur Salam Vision. Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous suivez le programme de Salon Vision. Voici une synthèse de l'actualité à la présentation Cheikh Oussaro. L'association des maires du Sénégal a tenu hier euh, une grande réunion importante euh, dans un hôtel de la place. Euh, selon Ali Moussa, le maire, le maire, le président de l'association des maires, a lancé un appel à toute la jeunesse sénégalaise de garder le calme et la sérénité. par ailleurs Sidé Ndiaye, le secrétaire général de la FGTS, a euh, fustigé euh, le report de ces élections locales et demande une délégation spéciale dans toutes les mairies euh, du Sénégal. L'annonce a été faite hier au cours d'une assemblée générale. Parlons de politique. Euh, les Sonkoïs des parcelles assainies au scrutin, ils ont organisé hier une assemblée générale pour déplorer le report des élections locales, disent-ils les postes de Sonko. pointe du doigt accusateur le président Sall d'être à l'origine de ce, de ce, de ce retard euh, concernant ce report des élections locales. Parlons des handicapés diplômés qui demandent euh, une prise de conscience collective. Les handicapés moteurs veulent être réintégrés dans la fonction publique. Ils ont tenu un sitting euh, ce week-end dernier pour euh, déverser leur mécontentement. Nous nous rentrons à l'étranger. Les Béninois ont voté ce dimanche pour l'élection présidentielle. Le candidat sortant, Patrick Talon, et trois opposants euh, vont briguer la présidence euh, de ce pays. Et nous nous rendrons au Tchad. Le président Idriss Déby risque de briguer un sixième mandat à la tête du Tchad. mbokki asalaamaaleykum ñu tënku si kàllaama Kocc Barma association des maires bu Sénégal nga xam ne Alioune Sall moo ko jiite amoon nañu dem benn assemblée générale fële ca Ndakaaru lépp euh, li Alioune Sall jël nay kàddoom ne ndaw ñu ñaan rek dal yar ak teggin xam nag euh, kii di nguur gi na leen jàppale nu mu gën a gaawee xam nga mooy Sidé Ndiaye di secrétaire général FGTS fédération générale des travailleurs du Sénégal leen nag euh, mi ngi ñaawlu maire yi nga xam ni seen mandat jeex na ñu tekki seen ndombal tànk Siré Ndiaye nee na jot na pour ñu auditer samp ay délégation spéciale si mairie yooyu euh, li jëm si handicapé moteur yi nga xam nag mooy way laago yi am seen i liggéey ñoom bëgg nañ ñu mu gën a gaawee ñu gestu leen embauché leen dans la fonction euh, publique ginnaaw bi ñu doon dox doxu ñaxtu euh, weekend bi ñu génn ñi nga xam ñoo faral ak Ousmane Sonko nekk fële ci Parcelles Assainies jamono ji ñoom kontaan nañu ñoom ñu ngi woo Macky Sall ak nguuram ak ay ñoñam ñu fonk seen i euh, kaddu xam mooy président Sall dafa bëgg a def rek pour foqati ak jalgati élection locale yooyu su may kaddu kaddu euh, ñi nga xam ñoo jege lool kii di Ousmane euh, Sonko ginnaaw ñoo dina assemblée générale fële ca Parcelles Assainies bitim réew la ñuy doxantu fële ca Bénin ñoom dañ doon sànni leen seen xob dem élection présidentielle président Patrick Talon moom mooy candidat présidentiel ak ñaari opposant cat lañ koy tëjee i seen Idriss Déby moom nag mooy président bu Tchad ak ginnaaw bi fanweeri at fële ci bopp réew mi boo moytu nag dina jiitewaat dina briguer sixième mandat xam moom mooy Idrissa bi jamono ji moom moo teg tànk fële ci réewum Tchad mbokk yi ñu leen di gërëm leen sant ba ëllëg incha allah.